أذكر الله حسن الورى بانتفاعي بكتاب سخر الحداد بانتفاعي من عصب حب الخديم sëriñ Mouhamadou Lamine Diop mi ngi ciy leeral ñibbisig sëriñ Touba fii ci Sénégal ginnaaw bi mu jógee Mauritanie war a dem ci yéen Jolof ak na mu fa nekkee woon ba ni mu fa jugee dem Njaareem sëriñ Mouhamadou Lamine Diop radiyallahu anhu nee na ci atum 1325 dëppook atum 1907 ci atum tubaab ci guddig gàmmu ga doonoon guddig àjjuma ci la Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu anhu bàyyi ko Ndar ñëw xumaag ci sëriñ bu mag bi bi mu ñëwee indi na ko bataaxal buy wane ne gouverneur français yi may nañu sëriñ Touba mu dellu ci am réewam bi ko maam Cheikh Ibra Fall àggee xibaar bi ci la Serigne Touba tàmbalee waaj yoonu senegaal Cheikh Ibra Fall jàppale ko ci defar ay bagaasam ak waajtaayam ngir dellusi ci réew mi sëriñ bi daal di tàmbalee di tàggatoo ak waa réew ma ba ci àjjuma ji ca topp ca gàmm googee dëppook fukki fan ak juróom-ñeent ca weer wa ci la borom Touba di soog a bàyyi bàyyikoo këram ca Mauritanie wuti yoonu gaañaar muy yoonu gaaya gaaya nag ab dëkk la bu nekk ca wetu Dagana féete ko ca penku ca wetu càmmooy te dex ga na foofa bi fa sëriñ ak seen fekk booba waa gaaye ñi ngi soog a yeesal seen jumaa ja ñu sàkku ci sëriñ bi mu julli ci jumaa ja ngir ñu barkeeloo ci moom sëriñ bi ànd ak seen imaam ja mu tudd sëriñ maxtaar saw ñu dem ci jumaa ja mu julli fa ñaari ràkka ci njalbeenu waxtu yoor yoor ba sëriñ Tuubaa jógee foofa nag ci la jéggi dex gi wuti dagana sëñ Mouhamadou Lamine nee na sëriñ bi nekk na dagana ba ca bisub ñaar fukki fan ak juróom-ñett ya di bisub samedi mu soog faa jógee jël bato jëm ci waxtu tisbaar diir bi mu def dagate yépp nag sëñ Mat Lamin nee na waa dëkk ba ñoom ñépp dañ ko doon ganale ba bëccëg te buñ ko daan ganale ci guddi gi daan ko indil ay xéewal dañ daan yor làmp yu leer naññ bi sëriñ Tuubaa gisee ni xéewal yi bare ak làmp yu leer yi ñu koy taalal ci guddi gi ci la wax ne lii de mooy la ma doon wax ci xasida ga ma tënkee woon walillaahi mulku samaawaati wal ardi ba ma nekkee daarul mannaan te mooy la ma mooy li muy wax naan diftul karima wa ataaba lil xiraa wala azaalu kasiraaji fil xuraa sëriñ bi nee na gane naa yàlla mi aji tedd mu ganale ma ngan gu dàq ci gan yi te dëkk bu ma mën a nekk dama fay mel ne ab làmp kon teraanga jooju waa Dagana doon teral sëriñ tuuba lu sëriñ bi bindoon la ci ay xasidaam lu jiitu muy dem gànnaar mu ne bi sëriñ Touba jógee Dagana ci bisub gaawu ba mi ngi àgg ndar ci guddi ga ba mu àggee ndar mi ngi daloon ci kër Cheikh Ibra Fall def na fa ay fan soog faa jugee dem Louga ba mu demee Louga it mi ngi daloon ci kër ku ñuy wax Alaaji Masamba Soxna jamono ji sëriñ bi nekkee Louga nag ci la yebal lenn ci murid yi ñu dem Thiéyène sancal ko fa kër balaa mu fa agsi bi sëriñ bi jugee Louga ci la daal di jaar ci dëkk bu ñuy wax gaañax foofa nag fa la fanaan te seen jàkka ja fa la xabrub seen wàlli yoo nekk nee na bi sëriñ Touba jógee gaañax googu ci la dem kër sëñ Daaru Asan Njaay fa la yendu fanaan fa xëyaat fa yenduwaat fa soog faa jógee nag dem kokki ba mu àggee kokki ma nga daloon ci kër sëriñ Madu Maam Jóob mi nga xam ne mooy maami Cheikh Mahamadul Bachir moom sëñ Touba radiallahu anhum bi sëriñ bi jógee kokki ci la dem ci dëkk bu ñuy wax Duriga ci kër Madul Sàmba Jóob mi maami Cheikh Mahamadul Murtada Xaadim Rasul radiallahu anhu ba mu fa jógee nag ci la dem ci dëkk bu ñuy wax kër Basim ci kër sëñ Madu Amin ma jóg foofa nag sëriñ Tuubaa fa la bàyyi ko dem ci yenn Jolof te lii lépp kat ci fan yu néew la ko sëriñ bi dox sëñ Madu Lamin ne sëriñ Tuubaa mi ngi àgg ci yenn Jolof ci njëlbéen ak weeru rakk ji gàmm ci atum 1325 dëppook atum 1907 fekk booba taalibe yi sancaloon nañ ko fa kër muy barab bi mu njëkk a ci ci Ceyeen tuddee kër gi Daaru Rahmaan nee na sunu borom dimbale ko lool mu nekk fa nekkin wu rafet mook ay taalibeem mbiram di gën a yokk saa su ne aw doxiinam di gën a jub foofee ca daaru Rahman fa la nekk ci atum 1325 ba ci atum 1327 di atum 1909 ca rakkaati gàmmu ga wala ca maamu koor wa ci la Serigne Touba dem ci wetu soowu ga lu tolloog benn kilomètre tuuti rek sanc fa beneen barab tuddee ko daarul xuddoos nee na foofu ca daarul xuddoos mbirum sëriñ bi daa gën a yokk na ma la ko waxee woon rek fu mu nekk fu nekk rek tayam ju ne day gàcceel démbam ba ci bisub ajjuma ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru tamxarit ci atum 1330 dëppook atum 1912 ab liggéeyam mat foofa ci ceyeen jolof mu war a faa jógee dem jaareem sëriñ Mouhamadou Lamine nee na doomi sëriñ Touba jii di sëriñ Abdoulahi Mbacke muy sëriñ Abdou Borom Dër bi mu ngi gënee jamono foofu ci ceyeen jolof ci weeru baraxluwa wala ca weeru koor wa ca atum 1327 dëppook atum 1909 sëñ Mouhamad Lamine nee na nee nañ ma de moom sëñ Abdoulahi Mbàkke bi mu gënee àdduna sëriñ Touba daa bind turu Abdoulahi ci aw kayit yónnee ko taalibeem bii di sëriñ Maxtaar Bintaloo mi nga xam ne mooy nijaayi sëriñ Modou Moustapha Mbàkke ne ko na ko tuddee Abdoulahi sëñ Maxtaar Bintaloo defee ko noonu ko sëriñ Touba waxe sëñ Mouhamad Lamine nee na léegi nag dégg naa ñu bari di ko woowee Abdoul Aziz xaw ma nag fu jëlee tur donte sax xamees na ne al aziz ci turu yàlla yi la bokk waaye nag sëriñ Abdullahi la arafat min xayrin sina in naxwi man xalawni min alwara bin qitaa'i